bismillahi rahmaani rahim maa ngi sant sëñ bi bu baax delluwaat ak di ko ziar di ko gërëm également kàddu yi rafet yi mu wax kàddu yi rafet yi mu jël tamit jëmale ko si ñun jëmale ko si préfet jëmale ko si chef de service surtout jëmale ko si suñuy kilifa ministre de l'Intérieur yaakaar naa ne xam nga taxawaay bi si bés bi problème mu yoon yi ngay wax ni yaa taa waxtaanu bi doo awoon ci di génne waxtaan nañu si delluwaat rek ah ñu waxtaan ak mais si delluwaat te du ñu xam ne moom moo tax wax leen rek taxawaayam bés bi taxawaayam tamit ci chef moom Cheikh Anta taxawaayam ci waa daal voilà ministre de premier président daal taxawaay boobu la ñu am kàddu yi sëñ bi wax si si ñoom wax ne am na mbégte àndaat ak yéen ci bés bi bu ngeen tamit continuer ak yéen bés bi keroog muy sotti nga xam ne lépp loo xam ne ndam la fi mun ko am yàlla defal na ko si parce que suñu tubaab di ngeen suñu tubaab moom taxaw kontaan bu leen nag yéen ay kontaan boo leen kontaanee seen tubaab seen ah kontaan suñu tubaab fay te ñaari jiw bi pour baax jottali ko tamit suñu maam moom Faat sa Gaawaan suñu Faat Guèye si Daal Sara ñu ngi leen di leen ziar di leen sant dégg nañ tamit li ngeen wax si seen i doléance bés bu ñu jëm commencé si wàllu sécurité li ñu def rek mooy def benn réunion boo xam ne kër yi xam ne war nañu góorgóorlu war nañu leen surveiller surveiller li nga wax yooyu yëpp ñu toppal benn par benn ba xam ne ni protocole bi tamit dañu naan protocole bi si nekk voilà protocole bi yooyu yëpp dañ protocole bi si rek incha allah alhamdulilah mu doon voilà bi ñuy déployé en général dañuy am déploiement yooyu ñu jëm boole ndax ñu sol tëli mais am yeneen yoo xam ne bu ñu sol tëli nekk si biir nit ñi di contrôler mën a xam ne leneen moo la indi la xam ne pour mën daal di mooy lu noonu dinañ béyee si yoon yi jëm ma jëm jëm ci si jëm si daal sa bi si bàq jëm Touba vraiment sécurité mais daal ma yombalal leen passage bi dinañ si yoon loolu sapeur pompier dinañ jàpp bu baax parce que war naag lay doon dañ koy ngir si su tawee mun na pompe beneen bi parce que tâche bi comme li wax dañ ko def waaye bu jotee ko laajee également de moom moom ñu ngeen war a taxawal pour camion bi dem bu leen muy déparé caserne bi ba pare naka sax ñaar la ko ci bàyyi wala bu ngeen dem wala déparé dem incha allah ñun tamit euh, di leen jàppale ba ñëpp bëri bi xam ne fa la ñuy toogee. ñu mën a fexe ba la daal di dundee. mais surtout vraiment wàllu courant. ne nawet lañ doon. nekk temps si am na ñu koy defee ci courant yi ñu ngi ñu maas. ñu ngi leen jàppale si biir taxawal tànk yi. vraiment jafe-jafe yi ñu ngi sax ak yeneen tànk yi nekk si waaw benn rek yeneen tànk yi nekk si vraiment ñu nekk ñu ngi sëñ bi. parce que conseil la bu ñu joxe. wàllu santé hygiène tamit ñu ngeen si wax poste santé bi dinañ ko renforcer waaw bu baax si wàllu déglu waaw si wàllu poste bi ñu mel ni wàllu Fokala parce que ñu ngi am ay postes avancés ñoom postes avancés ñoom dinañ ko def ambulance bi dinañ ko mën a renforcer benn ambulance boole ko ñaari ba nekk képp ambulance pour mën si wàllu discipline si wàllu service d'hygiène ñu ko waxee noonu daal moom tam produit bi mooy nekk seen problème bu leen si mairie yi jàppale rek am réserve boobu am nañ personnel am nañ matériel pour pomper waaw dañ koy pomper heureusement ni ko waxee tamit loolu pompe boobu ko def à l'avance waa nit ñi ñëw bu paree bu ngeen mën a boole pompe raxas ah produit bi dañ koy ah voilà ñu ngi leen donc toujours à l'avance xam nga au moins une semaine avant événement pompe la pare waa Quraan bi bu ñu leen si jàpp comme ni ñu ko waxee woon jàpp kon ñu def dañu ko continué def yeneen liggéey bi ñu ko ñu def yeneen liggéey bi ñu sensibilisation bi wàllu suñu bi di wàllu donc set ak setal ak hygiène nga xam ne ñu ci war a ñu ngi gën a waar mais ñu ci seen intervention donc mais 500 la am boo leen ci gën a je pense que bu dee sa compagnie bu bëree bëri ah ñu xaar effectivement bërëb yi xam ne vraiment yëpp ay bërëb yu war a leeral la waaw ñu leeral parce que éclairage ci sécurité la bokk éclairage public sécurité la bokk bu leeree voilà yéen di jéem ba leeralee ngeen jàppale xale bi si liggéey si wàllu bâche bi ngeen si wax ak moom lay boo indee ngeen di def ñu leen di seq ñu si jënd yooyu ñu si mën a wax say bâche ñu ko defee directement jàpp nañ tamit camion yi ngeen wax camion transport voilà bagage yi si wàllu camion yi xam ne ñooy nettoyé donc UCG dana leen si jàppale camion ak fer bu set setal bi moom leen si gunge loolu si wàllu semaine rek donc ministre wax délestage bi une semaine bon da ngeen délestage donc temps bi mais surveiller départ yi rek surveiller départ yi rek xam ne vraiment développement wax nga développement nga leen góorgóorlu nekk délestage mais pas très loolu ñu ngi commencé yoo xam ne rattrapé bi yomb na ñu ñëwee mu ndox commencé màgg moom ñu ne rattrapé courant mun na def rek ñëwaat mais ndox moom mu commencé màgg mu mu traité voilà les jours trente jours parfois ndox rek courant la ñu ànd ñu ne rek am na ñu ñu am ñu daal fexe daal waxtaan ko daal ngeen ñu ngi war a wàcc décembre provisoire bi avant branchement provisoire bi incha allah groupe électrogène bi dañu ko waxee sax problème moom technique la machine bi ñu ngi si am ñetti départ ñetti départ yëpp par rapport waaw ñu groupe électrogène bi moo xam ne ñu ngi mën a sukk yàq tension bi ñu wax ne si biir dañuy surveiller defaraat tension bi waaw ci courant bi beneen bi ñu ko mais ci courant bu mooy ressource ngeen wër ngeen seen seen mbir bu demee bu dellu saa di ko yomb su nga am yoo xam ne dafa fexe fexe ba ñu tudd benn yoon am lu rek wala en cas fekkee ne fële rek am na problème ngeen ngeen mën a am li ngeen wax nag si wàllu la société ngeen ko xool ak saret si waxam bu xool bu mun a defee kàddu bu baax bu baax soxla bu ko diwaanu Sédar la ñu ko wax yaakaar naa mooy jafe-jafe yi ñu am temps yii moom malgré li ñu suuf mooy jafe-jafe yi ñu am li ngeen si daal boo xam ne loolu kon loolu wax dëgg yàlla day waa nekk bu baax a baax dañuy jàppale Dakar si wàllu mooy bâche boobu ñun vraiment li fi nekk moom transitaire et cinq bâche boobu moom leneen moo ñu dañu seet yeneen di koy expliqué ne mën na loolu moo dëppoo rek donc ni ma leen ko waxee woon sax parce que dajale bi mu nit ñi doon baax man dajale yi ñu duwaat yëpp déposé ko comme ça bu ñu génne ñu dajalewaat yëpp teg ko si loxo sëriñ ah. loolu moo gën a gaaw si la demande unité mu hmm. leen satisfaire ak yéen ñu satisfaire mën na niroog leneen ci wàllu élevage bi ñu ngi xaar bi xam ne dañ koy nekk ko toppatoo bi dañoo nekk saal marché yi waaw mooy bu bu nekkoon sa loxo jaaxal la rek dafa daal suñu màggal bi daal suñu produit waa te jaay ko. donc euh, dañuy surveiller vraiment euh, mu am euh, qualité ci marché bi lépp loo xam ne marché bi la wax na baaxul. waaye ci prix yi tamit waaw quantité bi mooy ñaaw yi xam ne ko contrôler état fixe prix yi dañ koy vraiment prix yi état fixe jaay avec approvisionnement normal jënd nañ jaar bu fekkee am na approvisionnement bi ñu ngi yokk waaw Sonatel dañu mën ko war a waxee sànq donc ñun si loolu baaxee moom peut être dañu ko ñu ngi donc vraiment dispositif bi dana bàyyi li ñu wax ñu ngi leen deux ba dix mégas yaakaar nañu yokk seen puissance puissance bi ñu mën a def yeneen diffusion parce que xam naa ne yéen wax RTS dans ce soir ak presse bi naa ne bëri na léegi seen communication bu ngeen def ci seen bopp ak internet waa di ngeen sax ngeen def ci waa donc dañ si bàyyi vraiment ak waa waa waa Salam loolu tam si terme de finance je pense que dañ vraiment dafa war a deux mille cent ak deux mille cent ñu wax leen ñaata camion voilà dañ koy également waaw maanaam bu ñu resté avec courant yi ñu ngi sonn see fekk loolu loolu yàlla nañu ko léegi dañ ko defaraat wax dëgg yàlla delluwaat ci place am. waaw biir programme bi. am na ñu naan attention bu ñu ko def à l'avance. parce que buy ñëw fii rek dina mën leen wax gën a xëy na buy mën a dinañ am temps de camion temps de temps. waaw loolu sax rek vraiment fii rek wax dëgg wàllu RTS ñoom sax nee nañ léegi division bi nekkatul dafa am comme ni ko doon waxee ba màggal gi bëgg a jeex lu ana Cheikh maa ngi nii waaw loolu ma bokk beneen entreprise de presse tamit dana